Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, n'oubliez pas de liker la vidéo encore s'il vous plaît, c'est très intéressant, je like et content Alors avant de commencer, je vais vous présenter Terang School, une équipe qui a des cours de vacances à domicile dañ lay fekk ba sa biir kër la ci vacances yi préparer la ba nga pour année prochaine voilà euh, mathématiques nous avons ak PC classe sixième ba terminale dañuy avons aussi ay livres de préparation pour l'année suivante c'est cool voilà euh, numéro téléphone baa ngi nii mën ngeen leen woo wala ngeen fekk leen sur les réseaux sociaux School pour plus d' information mu gën a yaatu foofu noonu donc gars yi am leen jàmm gars yi aimé bi ak partage bi am na ci solo de balaa ngay wax doo nuyoo maa ngi tuub de bëgg naa leen bu baax siyaar naa leen maa ngi leen di ñaanal jàmm képp ku nekk ci yéen li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal amin maa ngi ñaanal ñëpp sal. ngi sàll bokk ci kooku lu mu bëgg yàlla na yàlla bañ <laughs> yow da ngaa xam lu mu bëgg troisième mandat <laughs> bu dee bokk na ci li muy ñaan yàlla na ko yàlla wax la waxal amin det du yaa wax lu amin da nga bëgg moom troisième mandat wala kon mu dé ah, vas-y waxal amin ah mais man pour ma wax amin man lay neex kenn du ko wax lo fi dal ñaar yoon fi nekk da ngay wax amin ànd ak askan wi wala nga bañ ànd ak pouvoir yo yow eh, affaire booy bi doon tégal métit pap Djibril Fall ni nak damaa bëgg nag fekk maanaam réew mi dafa bokk ci ñaari yoon fi ne da ngay jël góos wala nga jël maanaam gis ngeen nit ñi da ngay da koy yaakaar jiital ko da ngay da koy wax li nga xamante ne moom la ñu

xar mu tontu la. nawet daal lu am solo la ci doomu aadama daf ko dégloo yar ak teggin ba mu pare. waaye il a bien fait mais ben essence c'est compliqué parce que ñu bari dañu fokk ni opposition bi dañu wara a bokk benn yoon loolu la ñu bari fokk ah mën naa nekk opposant nga nek opposant te maak yow duñu bokk idéologie opposant bi ni mi gisee mbir yi opposant bee du ko gisee noonu léegi nag bu mbir yëpp laajee ñom ñëpp ñu bolo don ben say pour l'intérêt du peuple dañ koy def ci mu len di neex mais il a sa partie il a le droit de suivre ses idées bah vraiment gars yi nee temps da ngay politique oui je suis d'accord et mon parti politique c'est le peuple sénégalais askanu Sénégal la meilleure partie Ce moment mënoon a sama petit politique dama koy def parce que je déteste la politique sénégalaise mais la politique c'est l'art de bien gérer la cité c'est ça donc képp ku se réunions, ñor mënoo débarrasser de la politique man nga gis ne waruma dugg officiellement politique pour donner. député euh, député sax doo ko doon nga naan député génn ko sa xel de honorable mag sax dafa àndoon dama leen di jéggal honorable bi ni Guy Marius Sagna euh, pourquoi ni Guy Marius Sagna xanaa déglu woo déclaration bi mujjee def non lu mu wax nee na bu ko kenn woowee honorable lan moo tax mu wax loolu dama bokk si ñu gëm ne mhm. ki ñu fal dañ ko yónni ki ñu fal dañ ko yebal comme mani la demal wool ma maître El Hadj Diouf dëgg xam nga mën tooñ maa ngi jéggalu honorable Guy Marius Sagna nee na bu ko kenn wax honorable génn sama xel mais xanaa waru ko bañ tamit yenn bañ bay tëdd ci suuf. du ma xulloo kenn du ma xeex ak kenn ku ma woowee honorable. ah da nga ci sañ kenn ah, amul ah ah bi tamit pour lan la. waaw d'accord dëgg la buñ la ko waxee soppoo ko mais soppoo ko naan neex na joxal <laughs> moom dafa mérité baatu honorable bu yàgg avant muy nekk député. parfaitement d'accord taxawaay bu nekk boo xam ne mën na ko taxawee na ko Sénégal. dóor nañ ko.

moo ma jaaxal parce que ki dogo commencer defagul dara lo xamanteni c'est à honorer. bon man ni ko déggee pourquoi ñuy wax honorable député comme que dafa nek ben nit bo xamanteni ay nit dañ ko doylo dénk ko seeni voix pour mu représenter leen à l'Assemblée nationale donc mom ci jëm boppam il a l'honneur il a l'honneur de son peuple peut-être loolu motax ñuy wax honorable mais y a y a rien d'honorable ci ben nit bi dogo commencer service. c'est raisonnable mais ki nga xamanteni dañ ko fal il faut que mu xamni ki ñu fal dafa melni ni ab semmiñ boo xam yow dang kay jëriño pour dan garab bi nga xam mom nga bëgg danel pour sa njëriñ. donc vous êtes des outils dañ leen di deflo ngeen di def. ay saa ay outils tamit. amul neneen noko mëna waxé dal waxee donc gouvernement c'est comme caisse à outils. parce que caisse à outils ay outils yu bari ñoo ci nekk. ay jël marteau pour daj pour ne tournevis pour serrer fii clé pour monter fee pince pour képp fii nii voilà. Euh, gouvernement bu dé caisse à outils la Macky Sall moom ban outil la wara nekk. ah xana pince. day képp rek <laughs> mo képp na ñëpp yobu ci kaso bi. Euh, maître la Hadj nak maître.

mel ni kuy wax ak jaraaf. te ñoom xeex a xuloo rek lañ fa nekkee ñu nappante teguñu leen fa pour ngeen di nappante dañ leen a yónni yàkkamti leen. président de la république ndaw dong la. moom ndaw bu mag la moom. nam dañ ko wara a respecté parce que 17 millions de citoyens sénégalais lay waxal. ak arrogance. ñëpp dañoo jël suñu loxo jox ko mu ñuy signal ñun ñëpp dañoo jël suñu gaming 17 millions de gaming denk ko ko ngir mu ñuy waxal. ah mom de 17 millions yëpp la bëgg a ñaw la. ñëpp tëj seen gaming waaw légui nak comme que 17 millions de gaming lañ la jox nga bëgg a tëj yëpp. suñu kanam borom moo koy fajal bopam ba 2024 gaming yëpp dinañ ko jël bam dess bu maître El Hadj Diouf nga yobale ko. hors sujet. maître bu ko xoromal sax. yow jógeel fële. ya de kay waxati ak yow yàlla na yaangi ngi mer de man comprendre ma de lumi muy rek non loolu laa comprendreul mo ngi sey ba wala na bu da nga tas non tasso yéen xamal leen tas du ah bu de tass dafa jafé de da nga def ko 5 fois sik nga yow sa jëkkër ji nga japp ci internet bi diko wër ni géej pour lan la yow dal man nga ni heure bo amé problème ak sa jëkkër da nga leen di wër ci internet bi dama lay wër ba nga wéré félicitations avec discrétion nak té duma wax lépp adet ah, wér nit kay bo démé bokoy def li nga warul wax ngay wax parce que sama borom kër nga sa borom kër dang koy sutural man nabu yow ni ngay suturalé ni ko dajj ci internet ba nit ñi tek seen bëtt nabu lan lañu wax ci wér sa borom kër ku wér sa borom kër wér say dom bu ci kanamé nga dem wéri say dom lek ñu waw <laughs> tek ci nak dima sëriñ tu chaque jour mu yobuma xon dima xon rek nabu man paré na ci yow dé eh xon ni nawet <laughs> sama yoon nekk ci pourtant man ko jël dé sa saas la dé astaghfirullah ki nek ci say ngay wax say eh, pour man tasna tasna tasuma eh amul tasna tasuma de boo tasee tamit du mën a jël. ah ah nabu? dépassé nga ma de moom laa de. góor nga. mais. tu es petit. d' accord. moi j'ai fait toutes les guerres. loolu laa jar 14 18 16 18 22 24 troisième guerre mondiale. yow koy six guerre nga def yëpp defet. déggoo ma de. jugal fii. ma waxuma loolu de épices yi ñuy jox ñu koy lekk tamit duñ ci wax. doy na waar kay. xoolal. ni Xadi Mbay balaa nga dégg sama gaa yi gis ngeen gis ngeen masi bi xoma masi la xoma ajaa ay gunóor ak ay sax gis ngeen sax dem bay sotti ci jin bi teg ko ci loxo et eh, eh, ministre bi ñu dénk wàllum épicerie di wax ci lii oh, man de damaa tiit et eh, ça veut dire que contrôle bi war ci suñu alimentation defuñu ko li ma dem nañ ba bu amul épice day leweta leweta lewet ni yow man maa leen yow de yaa raw nawee xam nga lii mooy sa problème nit ñi dañuy wax jaar gauche nga jaar droite di mel ni Youssou Ya yaa ko raw nak aga xew aga xew borom nuuru laa xoolal Youssou eh, ndjay ngay teggal yow ya, nga jaar yoonu Benno bok Yaakaar mom muy way di jaar yoonu yewi askan wi beug na la lol lu jey lu jey ya, do mi garmiyaan ci yow soo baaxee sa yaaya ko sa do sonnel bañ lay ba nga fay bur yaala la taal do fay sa yaay suñu lumière kenn xamul lii lan la aar bu yaatu rek musique moo jur lu nekk te Youssou Ndiaye dafa yàgg ci aar bi nag ndeysaan aar bi kay natt la bu tege ci kawam yow Nabou Dash mii nga foog ne amul lu bokk ak les mabo lu xewati divorce loolu la ñu wax moom la ñu waxati euh, gis nga gis nga bis bu ñu xëyaatee bis bu ñu xëyaatee ngeen gis ngeen dugalal ñu clip xam nga temps yee ne waxu divorce juddu woon nag ñu xëy ngeen wayal ñu nag bii nag dañu xëyaat gis ngeen wayal ñu màggal Tuubaa Maître El Hadji Diouf hors sujet. xaw ma hors xaw ma waaye di nga créer ab groupe WhatsApp pour 17 millions de sénégalais yëpp pour lan ñu wax kenn bañ koo seetaan jar na ko. Eh, xoolal man maa bo wuy ma ay ay waxi divorce mu ngi may bëgg a soof ci seen diggante quoi vraiment xaw ma looleen xaw ma dëgg la xaw ma lu dëgg xaw looleen jote mais luñ jote ah nee nañ violence conjugale. Ah, li waxoon moo ñëwaat moo di kat ah doore de moom alkaati wérul yee koy def. nga ne ko.